asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ahmadou kalaasi la jaamu sëriñ Tuubaa xaadim rasul dafa am rek ñaari yëf mu benn bi bi ci jiitu mooy sant euh, kan sant ñi ma àndal euh, bokk ak ñoom kër sëñ Cheikh Sylla Diwaan euh, te waxtu bu ne nuy am liggéey bu nuy bokk def ci kër gi ban liggéey lan génn màggal gi doonte sax màggalewuñ wuñ ko niñ ko war a màggale dañ koo def ci ndigal rek wàcc kaamil teewut barab bi day barab barabub siyaare ba ñu bari teew nañ fi noonte dañ doon ñëw di dem ñi nga xam ne eh, eh, teewuñu it ci sama ndigal moo tax teewuñu ndax man dama leen di wax ne su ma waxee sama ñi ma yàlla booleel nañ xaar rek du ma gis kenn ndax ñoom dañoo dañoo dégg ndigal ñi ëpp ci taalibe yi eh, kenn ñëwul waaye ñi ñëwit ñëwaale nañ leen ña toogit ñu ngi ñaan màggal gu ñu mas a màggal tuyaaba juñ ci am yàlla nañ ko bokk am nu nag ñoom ba loolu jàllee seen taxawaay ci màggal gi rafetlu nañ ko lool ndax liñ koy wayefal woyefal seen doole ak seen alal dem na ci kon ñu ngi leen di ñaanal ci loolu bu baax di ñaanit yàlla na yomb seen wet ci barke xaadima rasool euh, bu loolu jàllee nag ñu ma loo xam ne loolu moom yaakaar naa ne jërëtu sax ma leen ci soññi ndax damaa xam ne mboolem ñu ma bokkal kër gi yéene ju ma am rek ci ci weeru koor ñi ma bokkal kër gépp am nañ yéen jukko ju te kenn ku ne it la nga ci daa def xam nga ko kon yaakaar naa ne du lu bees ba ñuy tobbi ay sas naan diw nangam lay def waaye ku ne nag saw sas defe naa ne xam nga ko ñuy wax taalibe yi rek ne leen kenn ku ne la nga daa def na nga bàyyi xel ci ne ren ñaaram lañ bëgg nga def ko <clears throat> euh, ndax danoo bëgg mboolem ni daa liggéeyale sëriñ Touba ci wet yépp nu nu nu defe ko noonu ma bëgg lu ci waaye doon def nga def ko waxuma nag def ko di xaar ndax ñu baree baree bari am nañ pas-pas naam waaye dañoo xaw a yëgati ndax dañ naan ah weeru koor bi war naa ci def nangam nga xam ne li nga ci war a def moom mi ngi ci sa poos wala xam nga ko wala bëgg nga ko wuti da nga ko am waaye ngay xaar rek weer wi bu feeñee am na ñoo xam ne am nañ pas-pasub bala balaa weer wee feeñ la ñu war a def ñu def ko am ñoo xam ne dañuy dem ba ci biir ñu def la ñu war a def am ñoo xam ne laytu xadar la ñuy ñëw def li ñu war a def te kuy xaar nag bu ñëpp xaaree defe naa liggéey bi du tàmbali nuy ñaan kenn ku ne rek balaa weeree feeñ lañ ci war a def nga fexe ba mu yemb te tege ci loxol Mouhamadul Moustapha si la mu mag wala Mouhamadul Moustapha si la mu ndaw wala sama loxo euh, la ca desit euh, damaa defe ne ci sama xalaatu bopp xanaa man moom sama bëgg-bëggu bopp defe naa dongo yi moom léegi xanaa xam nañ ko man du oto du kër du ay xaalis déedéet man liggéeyal Sëñ Tuubaa rek moo ma ñor ba tax na képp koo xam ne bëgg nga lu ma neex dangay fexe ba ni ma ni ni ma ñoree moom muy liggéeyal Sëñ Tuubaa na la ñoree noonu rek am na ñoo xam ne nag ba ma tàmbalee di dox ba naga ni ginnaaw sëñ bi fu ma geesu gis naa leen am ñoo xam ne léeg-léeg ma gis leen léeg-léeg ma leen gis am ñoo xam ne nag duma ma leen far gis waaye may wax nit ñi ne leen képp koo xam ne bokk nga ci dara tamit mbirum Serigne Touba nga xam ne loola moo la boole ci Serigne tubaa te léeg-léeg bu ñuy dem ci sëñ Touba buñ geesoo duñ la gis bu ëllëgee loo ñàkk ci sëñ Touba na nga xam ne kenn xañu la ko yàq ko sa bopp. wax it ne leen nañ ko daa defe rek ndax ndegam daa am lu fi ne te noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla na ko yàlla jële ci àdduna bi waxuma Sénégal àdduna bi yëpp muy mbas mi yàlla na jeex ci barke Serigne Touba barke weeru koor barke gaa yu baax yi nii roy sun maam yi yal na ko fi yàlla jëlee ñuy wax rek ñi nga xam ne ñoo daa ñëw di taxawu liggéey bi nañ jël matukaay yi ñu daan jël rek liñ daa def daaw kenn ku ne lu gàtt gàtt su fekkee da nga fay def weer na nga def fukki masque ak juróom na nga ko wutal sa bopp kenn ku ne na nga yor sel ci sa ci sa poos di raxasu di daandante loolu loolu lañ leen joxoon digal daaw defe naa loolu moom ñu togg si woon ndogu mokkal nañ ko waaye ñi nga xam ne dañuy ñëw di indi seeni ndogu it ci yoon bi ak ci kër gi nañ jël seeni matukaay loolu rek lan ne woon nan leen ko dolli wasalaamaaleykum wa rahmatullah